bi ngi leen di xool di xool ba xam yaram bi nii naam déet combat bi combat bu neex la buñ nee caati ngéwël ndaysaan Ousseyn Kaay ndaysaan bu Ousseyn ñaari combat xam naa ne bokk na ci combat histoire yi gën a neex ci combat yi. Baye Djili maa ngi lay nuyu di la jaar. di ziar euh, ñi nga xamante ne ñoo koy kal ci wasaare lamb di la wax ne alliance biram jaatu ngéwél te ngeen ñu mandi lamb xale yi dañoo nekk xale yoo xamante ni fu ñu tase ñoom ñaar dañuy jëflante ba mat tey nag bu leen abit bi wooyee di waxtaan ak ñoom ci li jëm ci lamb defe naa ne bu abit teggee loxoom seen diggante baa ji la nga gis combat bu neex baa ji li ndaysaan gis nga caatu ngéwél teg na pied droite ba mu yàgg mu changé indi pied gauche alliance biram teg na pied arbitre bi sifflé alliance Birame moom ngeen jàkkaarloon Caatu Njool moo la woon ginnaaw ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo corps à corps. alliance dagg na lewaatoo bi wala boog Caatu Njool dagg na bi waaye loo ci mën a mooy Caatu Njool bëggul xeex bi waaw waaw Caatu Njool xeex bi arrangé ko daa bëgg a ñëw rek jàpp waaye alliance Birame du ko noonu Caatu Njool am na ñaari loxo ci ngemb alliance Birame Caatu Njool faaw ñu xeex Badji li combat mënul noonu gis nga mënu cee ñàkk. alliance bi am rokkas na léegi waaye caatu ngéwél daa bëgg a ñëw rek jàpp bëre làmb jaa ngi noonu. ndeysaan ñoom ñaar du yomb caatu ngéwél alliance biram alliance biram moo ngemb lu weex li ngay seen lu vert li noonu caatu ngéwél moo tent bopp bi ñoom ñaar ndenge ñente nañ hypercute ngi jolli ci suuf. alliance biram mbokk yi léegi ba bëgg a jàpp téere yaa ngay dagg. plaqué na ko plaqué na ko ah, bi ñëw alliance bañ na alliance Birame de force la ñuy def fi mu toll nii jàpp benn loxo rocc dóor jàppaat alliance Birame ngi noonu Thiatou Nguéweul sëq na ci ginnaaw ngem Thiatou Nguéweul baa jil booy xool dafa mel ni bëre bee ko gën a ndax boo xoolee chaque jour day xool fu mu yor loxoom manoeuvre Caatu Biram alliance Ngéwél combat bu neex la. Ndeysaan Caatu Ngéwél alliance Biram ñoom ñaar ñu ngi jàppante ba léegi uppercut yooyu jolli. ñu jaajëfal waa Equivox. di wax ne liggéey bi yombul. waaye kontaan nañ ci ñoom bu baax a baax baa ji ndax euh, suñu takk na ko takk na ko da mbot mboot lu mu koy def. mboot tegal na ko sees génn na ca. waaw waaw waaw a yomb. Alliance Ngéwél tegal ca xalaat nag alliance bi doon caatu géwél ki da koo bëgg a mbot ki bëgg koo tegal sees da cee daanu waaw waaw caatu géwél daan na alliance bi rab caatu géwél caatu géwél daan na ko alliance bi da ko doon forcé tegal caatu géwél daan na ko jël bu rëy da ko doon tegal sees waa lii lu mu tas géwél jël bu mu foogewul moom ndeysaan kaay Adama. semaine lu tolloo quatre semaines bu a caatu ngéwél bi mu ñëwee sama open press dina xam ne caat nekkul bi combat bi desee quatre semaines laa blessé amusonu si laa gëj a contact ba tey barki Seydina Mouhamad non maanaam man damaa mën a bëre man yàlla daa def man damaa mën a bëre te man man ndoxtu mbër moo ne sama deret man man dara manuma may si àdduna lu dul làmb man bu dul làmb du ma am non maanaam maanaam man man dafa am lu ma war a defal sama yaay tabarki Seydina Muhammadu yi man kontaanaguma la non dama kontaanagul da dama amagul xaalis si làmb man sama yaay man maay taaw man la yaakaar waa xam nga tey jii nii ñun ay ay xale yoo xamante ni maanaam euh, lu nu appliqué rek tey jii daa am neneen nu ma doon ñëwee sax mais dan maa araftu mais dama ko doon dóor ba mu wàccil boppam non juumloo ma de jumlaw ma de Alliance Birame dama koo fooy dama koo kal maanaam xam nga caatu ngi wel xam nga tey jii jëmm ji dina ray ñu bari mais xam ga kan laa bëgg ñu jox ma ko. quatre avance dafa xew ay ñetti avance Tapha Tine moom dañu woon Malick ñaa la soxla Tapha na ñëw ñu bëre. tapetu booy bi mu doon moo gën a ragal si làmb ji. mooy làmb man instant yi nii. bis ni ki tey man damaa pare si booy nan ma jox mag ñi ma bëree ñoom. Matar. da ngay laaj sa morom xam nga dafa tëj. tey jii nii dañoo ñu bëree ñu ne moom combat. non non non non non non non armée laa bëgg bëreel. armée waaw am na combat mais ñaari avance daa xew. waaw jaajëf.